jërë ngeen jëf mbokk yi tey nag fi ñu nekk kenn dootu leen ko présenté ci wàllu làmb ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV tey ñu ngi fii ci arène national di arène ba nga xamante ne bii gouvernement bu Sénégal moom moo ko tabaxal ak lu làmb di arène ba nga xamante ne bii macha allah ku fi dugg di yëngu ci làmb macha allah da nga xam ne fii làmb yu bëri mën na fee nekk tey nag li ñu fi andi mooy waa CNG ñoo woote ñan la ñu woo mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jël seen xaalis. di ko dugal ci làmb mooy ñi nga xam ne su mbër bëree ñoom ñoo tax ñooñu la ñuy woowee promoteurs yi ñooñu la waa CNG di dajal ci biir wante xam ngeen ne boobu ba léegi làmb dafa nekk ci ay jafe-jafe li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy mbas mi nekk ci àdduna bi boo yegg si fii ci Sénégal daal di mbasaale làmb ji loolu moo tax làmb nekk ci ay jafe jafe-jafe CNG nag daal di woote ngir waxtaan ak promoteurs yi ñu war a dooraat lii di saison bi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 accompagnement nag am na fi ñu bindal ay lettre d' accompagnement nga ànd ak lettre yooyu dem pour lijjanti sa problème d' accord mais nag ñun ñu ko mënut ñu benn engagement pour organiser lamb ci euh, condition yooyu waaw. waaw réunion bi dañu woote woon rek parce que xam nga CNG dañu ubbi woon lamb ji sans pour autant toog waxtaan ak yi or que ministre bi daf leen ne woon ñu wax ak promoteurs yi ba pare effectivement loolu moo gënoon rafet mais de façon ci biir mbokk la waxtaan nañu promoteurs yi. Euh, majorité bi nee nañu ñoom mënuñu tëgg foog ñu demaat ci ministre bi pour ministre bi daal wax leen ndimmal li état war a jox làmb ji kañ lay agsi bon état ministre bi nag dafa demoon di ña di laaj yi di ñaa ñaani état kii ñaan nag doo xëccoo ngay xaar ba nu jox la rek nga toog di jël mais nag nee na ku mën a ku mënal sa boppit it wala nga am say pexey bopp comme ni ma koy waxee man ngaa dem démarrer en naa que ndimbalu état di ñëw man na comme man am naa samay pexe. man la ma jàppoon ba jox mbër yi xaalis noonu lay continuer muy le 4 avril bi heureusement que booy bi ko jàppoon sax doon ci wax taxaw na ni léegi bàyyee na date bi peeram Gaston donc wala léegi mëri yi manager yëpp joxoon naa leen seen xaalis ba nga xam ni tey lañu waroon ñëw seen CNG pour signer. seen chèque pour dem jëli seen chèque gis nga léegi Mohamed daal bi mu taxawee nee naa ko demal nga jël sa chèque en attendant. kon mën nañ jàpp ne mbër yi doon la. mbër yi seen avance intégral. léegi li ci des mooy ñëw fii ci seen CNG njàmme defal ma tableau bi parce que kuy tëgg làmb aussi dafa am lu yu la war ci CNG. am na ci yu bëri nag yoo xam ne war nañ koo wàññi ndax Covid bi te na nu wàññi mais suñu ñëwee ba mu defal ma tableau bi rek. man ma régulariser au niveau du CNG de tavert nga xam ni manager yi suñu jaaree rek dañuy signé mën nañ maintenir Eumeu Sène ak ki nga xamante ne moom mooy Lac Lac de Guiers 2 su neexee yàlla ak yonente bi ki su benn problème amul daal fii lañ koy tëggee ci arène bi Eumeu Sène Lac 2 ak Modou Anta euh, Diène Kaïré le 4 avril Balla Gaye Bombardier kañ kooku suñu waree ba pare suñu waree suñu ci tegee wax naa leen ku bërki dem ci face à face bi ñu doon def suñu waree ba pare ñu jàpp date di 15 jours ou trois semaine après ñu tëgg ko nan ñaan yàlla rek mbas mi jóge fi nag mbas mi su fi jógee sax huis bi xëy na dakk mais mais bi am seen diggante yéen promoteurs yi noo ko gisee. non xaajaloo amul man xaw ma lu man man man man man du ma waaw man doxuma ci waaw man man bokkuma ci. boo déggee boo déggee. laay tegee huis clos. huis clos laay tegee am na lu nu jox nombre bu nu jox nombre boobu dañuy seeti ministre bi. pour vraiment mu yokk ko parce que gis nañu CHAN bi barki démb ci Cameroun football bi ñu bàyyi gars yi ba 10 000 personnes ñun suñu bàyyee 3 000 ou 5 000 personnes sax ci stade 22 000 places danañ mën a def distanciation